jot di le Sénégal juste moom sa koom boo moomul sa koom pour nga moom sa réew dina metti moom sa koom dinañ ci liggéey ak secteur privé bi yépp pour ñu moom suñu ko dañu ne lii moteur bi doxal réew mooy xaalis bi ñuy investir ma ne dëgg la wante ku ko moom hmm. su fekkee capital kese la nga dugal xaalis mu génne profit d'accord yaa ngi ci secteur privé mais bu fekkee dangay ngay ton ni lépp yóbbu ko sa réew bàyyi réew ma loolu du bokk ci patrimoine wu réew mi capital am réew soxla na ko li mu gën a soxla nag mooy patrimoine li moomal boppam ñun nag croissance bi ñu wax la Sénégal juste mooy boo xam ne xale yi di nga mën a judd ci réew mi màgg ci réew mi jàng ci réew mi am métier ci réew mi secteur privé du faible pays mooy faible am réew mooy faible état am day faible secteur privé faible léppam faible man damay def différence entre le secteur privé national et le secteur privé étranger bi nekk suñu dëkk nañu xoolaat andi une fiscalité juste pour un Sénégal juste et prospère et avec un état honnête loolu it ci la bokk état boo xam ne da nga honnête. fiscalité bi societé yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi ñëpp nekk hors tax nga xam ne dañuy liggéey di di génne xaalis bi ci biti. su ñu doon fay minimum impôt bu ñu ko doon fay yéen ñu wàññi leen parce que yéen bu ñu leen wàññilee da ngeen di embaucher plus xale yi am liggéey jigéen ñi am liggéey. parce que jigéen ñee xale yi ñoo gën a souffrir ci chômage bi. banque yi bu fekkee moomuñu leen du ñu wax financement. la banque instrument la pour réew. ñun war nañoo mën a commencer di réfléchir ak yéen banques yi dix milliards lañ lay laaj mais dix milliards fii ci biir fi li fi nekk rek mën ngeen koo créer ana soo leen àndoon nag état ñu am tout de suite une banque de l'entrepreneuriat instruments yi ngeen bëgg ñu def ko ci man nag ci suñu programme dafa am la réforme territoriale ñun dañu ne yemuñu ci rek foncier foncier suuf la mais nan lañuy ñuy gérer territoire bi ñu bokk ñun ñëpp réewum Sénégal nañu xam ne suuf si fi depuis suñuy maam ba léegi utiliser wuñ ci lu ëpp vingt pour cent mais ndox mooy problème principal bi ñun ñoo am sept cent dix kilomètres de côte ba pare am problème mu ndox loo est source de vie donc nañu régler problème mu aménagement du territoire jërë ngeen jëf président